aleykum salaam. kilifa diine kilifa politique itam bëgg nañu junj ak yow ponk yu bari yu xew euh, di itam coow ci ci ci réew mi dañ koy ki li nga xam ni maak Alaaji Njate Diop ñoo ànd ci waxtaan wi euh, dañ koy njëkkee li nga xam ni moo laal ci njabootu diine gi nga bokk di waa Léona Niassène ak euh, histoire Sénégal bi ñoom professeur Iba Der Thiam doon bindaat ba am lu ngeen ca seetlu ni ak ndëngte la. Euh, ngeen ni am na euh, doxu ñaxtu bu ñu nas seen lañu ci yenn kay tey nga ni di di nga porter plainte waaye moom professeur Iba Der Thiam bi RFM jokk ak moom biik nangu na ni njuumte am na te des na ko joyanti est-ce que kon euh, matati na plainte ak doxu ñaxtu ci sa gis-gis. waaw loolu mu wax sax du dëgg parce que communiqué bi mu def daf ci wax ne njuumte bi mi ngi am ci benn page ci. tom bu njëkk bi or du dëgg damay wax ne livre bi ñu ngi koy jaay fii ci quatre vingt même démb sax am na ñu ñu fa yebal ñu jënd ci léegi nag boo xoolee euh, tom trois bi moom mooy problème bi damay wax ne waaw ñeseen daal alaaji Malick leen moom ba léegi ay Iran Ndaw ak ay euh, Abdou Aziz Mbaye animateur ñoo leen di bindal seen histoire man sama baay ñooñu dañ koy bindalee histoire am wala Cheikh Tidiane euh, kii euh, Cheikh Tidiane Camara ancien douanier ancien douanier lu yoonam ci suñu yoon yoon suñu famille suñu tarixa à l'origine ba ñuy defar commission bi man man ak Ibader ñoo ko sos kanam kanam Ablaye Wade fii ci sama kii appareil mën naa la woon pendant deux ans échange yu ñu am réunion yu dem ay euh, yëf fi ñu taxawal à un nag bi fi Wade jógee amatul financement te boobu jegewul Macky mu dem jaay affaire bi ancien maire Dakar muy xalifa Sall kooku financé ko ba mu koy financé nag la jël daayira Tiwaawoon bi xam nga dafa am benn daayira Tivaouane boo xam ne depuis le temps colonial ñoom nit tubaab bi coloniser noonu lay jéem a coloniser kër yi këru sëriñ si ko wax rek ñu ne kooku ko moom ba fii ñu toog fii rajo bi seen télévision beeg yeneen télévision yi nga sax ay ñii ko moom duñu ay tijaan mais toujours y a la colonisation Tivaouane yéen ñooy ñëw jël micro yi di wax guddeeg bëccëg. li ngay fa wax ni du fay du fay ay nag. déedéet waaye dama koy souligner gis nga benn mënuloo faj góom te néew mi ngi nii dañuy war a wax ñun li ñuy wax lan la lii depuis téeméeri at la téeméeri at ñi nga ànd ak Tiwaawan 1910 la son baay ak son maam. ànd dem fa. justement yow ci boppam do gëj fofu te sa yoo fa demee yëkkati ay. kàddu yu rafet est-ce que njuumte gi am ci li ñom Iba ci am bi te mom mu nangu ko ne dinañ ko jooyanti est-ce que euh, jar na kon euh, di fëggaat dënn yi. di yee fitna fëgguñu dënn yi dama wax ne da nga da waroon na wax ne tome 3 bi man de li mo bëgg man moy Iba Der léegi dafa nek de trop ci commission bi ci misal gannaaw bu mu amee fan wu gudd bu dee woon tey est-ce que affaire bi day taxaw kon na jàpp ne dee rek ñun ñu continuer liggéey liggéey bi mu rafet parce que euh, euh, mënuñu régler yëf yi par celui celui par lequel le la est arrivé. da nga da nga bëgg ñu génne Iba Der Thiam. waaw dafa war ñun dañuy dugg ci biir man maa ngi nekk membre rédaction bi dama ko nekk toujours man bind naa téere ci sama baay ak sama maam ak alaaji Malick ba la ñu wax ci réew mi loola doy na pour ñu ñu wone lan mooy li fi ne mhm. euh, buñ la déggee sëñ bi Niass est-ce que du mbir mi dafa xaw a déplacé wu jóge ci diggante kër ak kër maanaam Tiwaawan ak euh, Niassène waaw kër ak kër Tiwaawan ci boppam am nañ seeni problème ñaata gaa moo fa ne ñaata jumaa moo fa ne loolu am na fa ne deng nga ñoom seen bopp am nañ seen problème lu tax amuñu benn élément tax amuñu benn gàmmu non lolu c'est pas un problème en soi. lolu kay l'islam gépp on vit avec. Mm-hmm. Mm-hmm. lolu on vit avec. Mm-hmm. mais buñu déggé sank nga ni dafa melni dafa am une colonie tuawaañeen. waaw maanaam lépp dañoo jël ñoom ak i moo ko. waaw da ngay déllu ci histoire bi ci jamono ja nga xamné pour que nga mën a am zaawiya ci ndar ak ndakaaru ak tëngéej ak feneen tubaab yi yenu la jox la doole. dooleel la ci kaw yeneen sëriñ si. bu boobaa yi doon leen di war a sëriñ si maa ngi leen di contrôler lu fay xew maa ngi yëg te di leen ko yëgal maam sama maam ba mu nekkee Tiwaawan jox nañ ko ay proposition indécente ne ko dañ lay te Kaolack de la defal euh, nangam ak i nangam. colonisateur bi yenu la waaye nag loo xam nag ñu ko yëgal mu neen awuzu billahi loolu dee ko gën bu ko def. est nga lépp nekkul wenn yoon di euh, lawal rek tarixa Cheikh na il faut nga am loo comprendre ji nga sëriñ bi bul ignorer le fait colonial colonialiste yi mhm. dañoo amoon sëriñ su ànd ak ñoom am sëriñ suñu contre sama maam ak sëriñ Touba ca lañ bokk ca ñoo leen contre ña ca des waaw ña ca des nag dañ leen soutenir bu baax a baax mhm. ba wax ne sax buñ doon tubaab ñoom yan daje daje boo yof waaye dañuy yenu ñun du yenu tubaab dañuy dagg bopp waaye duñ ko re duñ ko yenu lolu moy différence différence bi c'est depuis le temps colonial temps colonial bi mu amé il fallait que nga woné ne Serigne diou par exemple nee ci abbasal, abbasal, Sall Abbas Sall du talib alhadji malik alhadji Abbas Sall waxuma nag Mayoro ak ñoña way Abbas Sall ci bopom mok sama mak ñoo daan and man sama bop maa ngi ak doom yoo xam ne mooy seen sama famille la du seen taalibe moom taalibe su ma nijaay l'idara. li soomi njigéen na nga ne du seen taalibe ñoom alaaji Ablaay ñi sax lañ gën amal relation ci côté boobu waa kër rawaan ngoma nga leen duñ taalibe alaaji Maalik ji nga yooyu ñu indi woon wax ko bind ko li ko muy ay mans waa naka lañuy dama lay laaj am vraiment Sénégal est-ce que duñu offusqué wu su fekkee ne nañu rédaction histoire du Sénégal Iran Ndaw mooy mooy def rédaction ba mu ngi ci mu ngi foofu ñu ngi ko bind ci téere bi Iran Ndaw et membre de la rédaction de l'histoire du Sénégal alors que xamul sax bésu baayam ak maamam. xamu ko nga jàpp ne alluwaam yeegul foofu. maa ko gën a bien sûr alluwaam yeegul fenn yeegul sax certificat primaire te xam na ko. je n'invente rien école dañ cay dem génne ci commencé dem école. analphabet moom na xam na Tivaouane de. waaw d'accord maa ko gën a xam Tivaouane foofu moo fay dem juddoowul. Euh, euh, ci biir ci biir ci biir téere bi euh, lan lan lañ ci wax. loo xam ne nii tey jii moom moo waral coow li parce que euh, ci xibaar yi ñu jot moom mooy dañ ni euh, maam Abdoulaye Niass euh, Alaaji Abdoulaye ñas dafa jànge ci lekkoolu Seydi Hadji Malick Si Seydi Hadji Malick amul école fa école ba ne xanaa école bi ñu ko déggee ci kees te loolu bërki démb la amul école école bi fan la. non école boo ko déggee waxin la. dama ne man moo xamul ah. école yow danga ko xam dama ne. ni de pensée ni une école physique amu ci benn. yaa ngi ci tànki tooñ de. tooñ dites-moi quelle est la pensée a pas. Mhm. bu Alaaji Abdoulaye Niass amul pensée moom mi tax a jóge ni ñu Tchad ak Soudan ak Nigéria keneen ak feneen ak feneen kon kenn du am pensée. mais xam nga Ahmed Khalifa Niass euh, kilifa diine diine nga waaye mënoo remettre en cause euh, li nga xam ne waxees na ko ci Tivaouane nag ko ko taxawal ka taxawal tarixe booba fii nga taxaw 2019 gi di ko remettre en cause. dama ne c'est Tivaouane fait partie de l'héritage colonial yow li nga wax mi ngi ni dégg nga kooku ça fait partie de l'héritage colonial dégg nga alhaji abdoulaye ñas jóge ne fii dem ba faas dugg fa xal ba fukki fan ak juróom ñaar cheikh ahmed tidiane feeñu ko ni ko dellul Tivaouane ci alhaji malik la ma doon jox jox naa ko maanaam voilà pourtant lii cheikh tidiane si daf ko weddi ne du dëgg ne ñun alhaji abdoulaye ñas mooy suñ sëriñ lañ moom moo jëlee faas la mu fa jëlee ñëw jox ñu ko fii door a jàll. mën nga fàttali ku ku yëkkati wax yooyu. ñu ko dégg ñëpp xam nañ ko sama sama frère El Hadj Abdou Aziz. Al Amino kii ma ne moom dañu naan bokk benn néeg benn lal tu moom laa tuddee sama taaw taaw ba dafa dund. dégg nga mais bu ma waxee wax ji ba muy euh, dajeeg fan yooyu mu ñëw gane si ma mu ne ma sama wax yi da xam naa ne euh, loo ci xam yi gaa yi ak may ci euh, attaqué man ne ko am nga ci droit. que Alaaji Abdoulaye sa maam la man ëppale wu ma la ci kii Alaaji Abdoulaye Niass kii Abdou Kane kii Alaaji Malick ëppale wu ma la ci say maam lañ mën nga cee wax loo bëgg mais loolu du tàggale nous sommes toujours ensemble mais euh, tooñ lañu ñu gépp tooñ man ñu ñëw ne ma Cheikh Tidiane Camara ancien douanier mooy wax ci xalifa ñu son baay moo ci bind ci alaaji Abdoulaye Niass baayam. waaye xam-xam kooku dama xam-xam nag yàlla mën na ko baaxee. ku nekk itam mais dafa xamle lu mu xamul kenn mën ta xamle loo xamul. dégg nga kenn man juróom benn téeméeri ni bind nañ ci man ay téere xamuñ ma ñii ay allemand la ñii ay espagnol la ñii leneen la waxuma loolu du am. boo demee ci Google Books danga ko gis mais fi nga xam ne fii la fond problème bi nekk mooy lu tax tiwaawoon ñoom woo ñoom ma bindal leen maa leen gën a xam foofu. ndax man xam naa Makhouredia si te moom la ñu tuddee Ousmane si tudd Ousmane Sy Makhouredia si moom la ko bàyyam tuddee xam naa la ko fa dalee di ñëw xam naa histoire u Sénégal lu bëree bëree xam naa xeet yi fi nekk fu ñu jaaree ba ñëw waaw kon nag je crois que comme ñoon ñun bindaluñ Tiwaawoon Tiwaawoon waruñoo bindal ci loo xam ne histoire générale du Sénégal waxuma nag kuy bind livre am wax ci lu ko neex. mais ñiy bind du du Tiwaawan moom moo bind. dama ne ñiy bind ñiy bind ci turu ne lii mooy ñaseen xam lañu ñooñu mosuñu woon bokk ci comité bi. comité bi man maa ci bokkoon ak ñu mel ni man quatre-vingt pour cent des membres du comité ont été exclus par Iba Der Thiam te du ko te bu bëggee suba ma oote une réunion du comité chez est-ce que loolu moo la metti tuuti itam. ci li nii ci xare sa tànk tubéy nii mooy maanaam li nga bokkul ci mbind mi. Babacar déedéet déedéet dama ci dañ ma ci désigné pour ma bokk ci ba pare mais waxuma loolu bu ñu waxee ci sama baay dañ ma laal personnellement. te yonent bi nag ku ñu. sa baay El Hadj Abdoulaye Niass mook sama maam ñoo àndoon ñoom ñaar def voyage ba ca Fass ñëw toog ca Tiwaawan di fa jàngale it ñoo fa njëkk a jàngale en 1910 waaw. foog ngay joxe ay référence itam de. waaw waaw joxe na ay référence mooy 1910 mooy li ma la wax dama ko bind livre la mi ngi tegee ci kaw marché bi. Euh, euh, man laaj bi moom mooy est-ce que euh, Ahmed Khalifa Niass amul problème ak Tiwaawan parce que lu yàggul rek ci koor gi gée seetaan nañ la ci ab télévision ak ñenn ci ay taalibe Tidiane mais coow la jugoon na lool. li ci wax ji yax ji yëpp juge ci Tiwaawan. man xam nga lu ma fekk. li nga hmm. man Tiwaawan. Hmm. bu baaxee sama Tiwaawan la. Hmm. waaw man bu baaxee sama teewaawoon la. ndax alaaji Ablaye Niass moo fa moo mos di jiite alaaji Malick di maye ci kanamam wirdo di maye ci kanamam muqaddam am nañ muqaddam yoo xam ne xamuñu woon alaaji Ablaye ñas alaaji Malick lañ ñëwoon dajeeg muy ganale alaaji Ablaye Niass ñu gis ni kii. wàllu wu mag la ñu ne ko kon nag nga may ñu ñu jëlee ci moom ñu jëlee ci moom ba tey ñu ngi leen am ci Fuuta ak feneen mhm. naa ci tudd Tafsir Bàlle Seck ak ñeneen ak ñeneen kon nag ce qui est important man amuma lu muy mer ak lu ma dul mer parce que Tiwaawoon ñi nga xam ne il sont vraiment savants et éclairés ñun ak ñoom dañoo mel ni mburoog soow comme tey sëriñ Cheikh yan si wala tey sëriñ Moustapha Sy bi Moustarchidine mhm. donc affaire bi yaa Tiwaawoon et Tiwaawoon alaaji Malick ci boppam ci mbindam am na ñu muy muslu ca Tiwaawoon yàqkat yi ci mbindam. mi nga xam ne loolu yaa ngi dugg ci problème mu famille jàmbur. non non wax ma famille jàmbur dama ne alaaji Malick ci moom mbindam mbind alaaji Malick war nañ ko mën a wax. loolu xanaa duñ ci def embargo lu mu bind moom ci woy woo xam ne sama maam la alaaji Abdoulaye Niass la ko woy kon nag ce qui est important. moo di ne war nañu xam ne les temps ont changé on n'est plus sous le temps colonial. coloniser ñu radio radio, la ak télévision radio et ak télévision si ci xamné ne jox ay ñassène ñuy wax la porter plainte parce que nous, nit dañu un message un message religieux message bi jëlé des dizaines de millions ñu disons, top, top, message bobu lu jara de déglu la te dañu am droit ni ñi ndax ñi dañoo gëm Baye Niass gëm Alaaji Abdoulaye Niass gëm Maam Khalifa Niass. non problème boobu moom amul ci média Sénégal yi. waaw am na ci yéen fi yéen amu leen benn ku fi wax ku bokk ñaseen yéen ñii seen groupe TFM bi amu ci. maanaam amu ci amu kenn ku fi wax koo xam ne ñaseen la ci diine ji mais bu ñuy tànn tànnuñu tarixa dañuy tànn. non non ñuy wax ci ñëpp. waaye mais xam nga lu ñu jàngal en philo la la coïncidence n'existe pas pourquoi looloo ne ci rajo bi moo ne ca télévision. yaa nañ la ngay wax moo nekkee feneen. déedéet yaa ngi ni tey invité nañ la ngay wax non man nag ma invité pour affaire actualité quelques minutes ma jóg dem mais kii fi wax diine toujours toujours buy waat euh, si lay waatee ak ku dul moom. du ñoom rek est-ce que loolu mën na. nekk am na ñuy am na ñuy neneen am na ñuy waatee neneen itam. déedéet déedéet ah. ñi sën dama la li ma la wax ñoom ñoo coloniser antenne yi ñoo coloniser caméra yi te dañ leen di dañ leen di orienté ci loolu am na fii ci canal bii canal 4 fii dégg nga ci station Oil Libya école bu tax ak moom ñoo leen di orienté ñooy créer. ay les imams ñoo yónnee ay imam dem ci jàkka ya kii imposé ay imam imposé ñuy wax ci rajo yeeg télévision yi ba ñooñu nee nekkatuñ suñu mbokk est-ce que tant que kilifa diine Ahmed Khalifa Niass taxawaay wi nga taxaw taxawaay wi gën la ci ak féewale goo xam ni. daa mel ni xanaa yow déglu Abdou li mu wax léegi. jëlewee ko ci El Hadj Abdoulaye Niass te wax ci boobu. xam nga ñooñu dañ daan defar. lu baax rek la ñaan d'accord est-ce que li defar la est-ce que li defar la man tay ji li nga wax tax tank yi nga wax ni ak ni nga taxawé ni dafa mel ni ak féwolé lay nek digënté ñaari ñaari ñaari mhm. au contraire man du mo féwolé au contraire man nak man ci kër yeb lay dem ñep la bokal deng euh damay nangol nit ñi li leen yalla may deng amna ci ño xamné nañ ma méré parce que dama jema jox serigne touba palassam mu naqare leen mais loolu bu leen naqare duñu du ñu beg de parce que yàllaa ko may mayuma ko waaw jël la mbaa bàyyi fii yëf yi dañ koo jëlee beneen façon parce que ñoo ñu ma lay wax duñu wax ba tudd alaaji Abdoulaye wala Xalifa ak Baye Niass te Baye Niass moo leen ëpp taalibe junne yoon pourquoi ñu omettre Baye Niass duñ ko wax ci rajo yi duñ ko wax ci télévision yi nañu wax ci loolu xam nga li déedéet koo ci wax rek mu ne ah sama sëriñ kay keroog ba mu ñëwee ceebu jën ba ba mu ñëwee soxna si mu ngi sol benn ala daaw bi non loolu du waaree nañ arrêté loolu waaye. xam nga wax ji ci télévision yi ak ci télé yi bu ñuy wax je pense que islam la ñuy wax wàllu diine lislaam waaye bu ku nekk bëggee ah, ah, xalal sa bopp mbabal est-ce que kon euh, li nga xam ni moom mooy la ñu war xam ci lislaam nañ ko xam. sëriñ bi. Mhm. rajo bi ba mu sosoo ba léegi ñu ngi dégloo. Mhm. ñu fi wax diine mosuñu wax suñu baay mosuñu wax suñu maam. Ah, dañoo leen ëpp taalibe déedéet. loolu moom sëriñ bi tey maay jàkkaarloo ak yow weddi ko ba mu set wécc. ne ne fii bu ñuy def programme yi amul. këru diine buñ dul dugg buñ dul weddiwaatal sa bopp dama ne la da ngeen am fii des responsable desk religieux te du wax lu mooy ci Tiwaawan nag. doox Serigne Touba doox ci alaaji Abdoulaye Niass. Ah, ah, déedéet ah, ok ok léegi ginnaaw waxtu yi def nañ actualité euh, institution Sainte Jeanne d'Arc mel na ni ndox mu sedd mi ngi ci tàmbalee tuuru coowal xale yi ñuy tere ñu muuru foofu waaye école bi nangu nañ muuru gi waaye dañ koy réglementé euh, muuraay gi sax nee nañ ñoo koy jox xale yi euh, def ko ci anam bi nga xam ne ñoom noonu lañ ko gisee jàmm nañ ñooy xëy na kon benn yoon ci sa gis-gis ndax dogal bu baax la. Mm-hmm. waaw lu baax la. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que loolu itam matoon na ko ci euh, xale yi nañ génn duñ génn. waaw mais am na mais ëpp nañ ko doole ba euh, réglé nañ ko loolu mooy li am solo Sénégal euh, loolu mooy li ci am solo mooy yëf yi nañ koy jaarale fi ñu war a jaar man dama bëgg képp koo xam ne da ngay wax ci diine na nga bàyyi xel ñaseen ne dañu fee ami taalibe dañu fee bare. te ak ñi fii siyaara si kon nag bu ñu ba passé ña seen à perte et profit c'était une politique cette politique doit cesser sinon nous sommes des frères et on s'aime et on, on partage aussi ce qu'on a. waaw lii moo gën a neex dégg kay. Euh, waaw <laughs> waaw déedéet waaye loolu mooy njëkk yàlla sax wax na loolu. yàlla am na laay boo xam ne defu ci bisimilah rahmaani rahiim balaa atul mi raayoo sa milaay wa rasuli la ko tuddee. attaque directe. attaque directe dafay am sinon jàmm am olof dañu ne gannaaw ay jàmm. mais da ngay taal ay ba pare bañ xam ne yow doo ko ñu ki waaw ce qui ne réew mi dañ ko def si rek mais ça c'est pas vrai ñun ñoo gën a bëgg si waaye nag ñi ci def dañ fee ne il faut pas qu'on les passe à perte profit